waaw salaamaaleykum sama gars yi maa leen di siyaar kasi nekk ma dala jox sa wàccuwaay ah tey mbir mi neex na tey mbir mi tans na gudd na ndeysaan yaakaar naa ba mel nii day maanaam atta ba mel nii day sawaay yaakaar naa mu ngi fay doog a am de waaw non ba ma ne du yàggaay bi daal waaye neex gi mu neex ak maanaam euh, seen journaliste boobu laa xaw ma xaw ma nan jaañ bind ne xaw ma nangam ak nangam gars yi démentir que si saa si loolu dala xamal ne rek ñoom dañ nekk di paniquer quoi dañ nekk di paniquer euh, yàggala ma leen wax ne na leen incha allah dalal leen seen xel te xam ne ne ndam lii la victoire est proche alhamdulilah Cheikh Bara Ndiaye sax moom di ko ñaanal yàlla yàlla gën ko taxawu doolu taxaw tey dégg ngeen ni mu wax waaw waaw tey la gën a taxaw si ne Sonko day bokk incha allah vidéo baa ngi noonu waaw te du yàgg dara ngeen gis ko vidéo baa ngi noonu waaw kay hmm, mu ngi noonu vidéo baa ngi noonu léegi nag li des mooy ngeen euh, préparer carte yi te waajal parrainage bi ñii sàllaw ak lu ñu mënta décider wallahi yàlla noppi na nee naa leen Ousmane Sonko ndax am la ko suñu borom jox laa xamante ne si moom la ko yàlla nam ma pour mu doxal ko si Sénégal du keneen moo tax ngeen waroon noppalu waaw Cheikh Bara wax nak ko si waxam nee ñoom système bi nii cinq mois yi leen desee la ñoo xeex te man Ousmane Sonko cinquante ans yi jëm si kanam moom laay xeex kon noppalaku leen noppalaku leen lu ne def ngeen ko Ousmane Sonko maanaam tax na ngeen dugg si laa xamante ne dañ koy rëccu ba keroog ngeen ne dee abadan ilaa yawmi ba abadan ilaa yomi di da ngeen koy rëccu ba keroog ngeen di dee seen set ñëw di ko ko histoire bind ko ngir la jéem a éliminer kaa xamante ne yàlla éliminer ko jéem a éliminer kaa xamante ne dafa dugg si xolu Sénégalais yi kañ ngeen di noppalu hmm? kañ ngeen di noppalu Ousmane Sonko jëlee na la nii à ce point kon ce que veut dire du ngeen nelaw bu ngeen tëddee li am am na ba noppi de <laughs> yàlla tudd na ko ba yàgg incha allah. béyboo nag ngeen wàcc wàcc ba jekka waaw mu ñëw toog toog ba jekka nag teg réew mi si si si si yoon incha allahu rabbi waaw li si des nag <laughs> jarul sax ñu di si yegg waaw kay di leen ñaanal rek ngeen am tawféex incha allahu rabbi